di seen ay oto ak seen ay euh, Jakarta effigie ki nga xamante ne moo di seen tête de ak soxna si nekk foofu ca Koungheul ñu gën ci am euh, lu leer am na ay image à l'appui am na ay image yoo xamante ne tamit y de des yoo xamante ne jamono ji ñu ngi leen di faj ñu naan euh, am na yu bëri yoo xamante ne duñ ko mën a wone ci télé ci wàllu image yooyu tey Abdoulaye violence bi président artu woon na dafa mel ni lii la gisoon mais malheureusement ce discours du chef de l'État a été noyé ba nga xamante ne quintessence bi liñ ci waroon jëlee mu soxal askan wi jëlee wuñ ko ci woon. Euh, malheureusement euh, malheureusement malheureusement euh, te c'est dommage euh, que la première institution artu Euh, wax li nga xam ni mooy euh, jàmm ji mu war a jàmm ji campagne bi war am. Mhm. nga gis ñoo xam ne automatiquement génn nañu sax def communiqué pour ne ko waxoo fi dara. Mhm. alors <laughs> je me pose la question de savoir où se trouve l'information dans la communication du gouvernement. Mhm. du du président de la République. parce que tamit xam nañ ko l'information essentielle. dans sa communication mooy jàmm durant tout le temps de la campagne et que moom garanti na. première élection bi mu doon président de la république mu doon mhm. des élections démocratiques transparentes et libres je pense que bu ñu dem ci élection acteur bu ci bokk moom ngay euh, sàkku mhm. société civile moom lay sàkku bañ na ko ba dafa tëjee ne que le meilleur gagne je pense que de ce point de vue bu soo nekkee au-dessus de la mêlée te wane ko parce que c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal mhm. nga bëgg nga bañ nga far nga bañ a far c'est la première fois qu'un président soit élu et qu'il de sa formation politique parce que tey jii ku ñu fal da jóge soit ci mouvement indépendant wala nga jóge ci dara tënk ko mais quand euh, pour véritablement être au-dessus de la mêlée et véritablement se comporter comme première institution parce que tey fu mu munti dem ce sera le président de la République qui se déplace mm-hmm. tant qu'il euh, jamono ju mu mënee la parole c'est le président qui parle alors qu'avant da daan on voulait nous faire croire qu'il fallait par mois faire la dichotomie soit c'est le président de la République qui parle par mois soit c'est le chef de parti qui parle ça a commencé par le bureau politique du PS. Mm-hmm. par le comité directeur du parti démocratique sénégalais et par enfin euh, le secrétaire exécutif national de l'APR. Ah, oui. la ñu doon réunion. Mmh. était devenu une permanence pour les partis politiques. Mmh. qui étaient au pouvoir. Mm-hmm. aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que tey kenn du fa tëj euh, bureau politique. voilà. Mm-hmm. donc c'est fort dommage que ñu yegg si si benn niveau wax ba pare lendemain déjà a commencé. Ah. entre le camp de Abbas, de, Abbas et, de et, et violence dafa bari ay niveau dafa bari ay forme il y a une violence aujourd'hui verbale par moment moo gën a violente que la violence physique mmh. encore mm-hmm. parce que dafa am wax yoo xam ne kaddu saay boo ko yëkkatee fi mu war a mën a jëm dafa dafa dafa dafay sore mm-hmm. léegi nag li koy concrétiser malheureusement mooy saay bu ñaari camps yooyu a jege yoo rek effectivement violence day am. Mm-hmm. mais je vois que la police commence à se déployer et parce que au niveau de de la SICAP <laughs> suñu suñu quartier yi. c'est quadrillé voilà c'est c'est mm. quadrillé et on en a on en avait besoin. Mm-hmm. parce que quand même soxlawuñu ay échauffourées. Mm-hmm. te ce qui est dommage mooy da ngay jéggi tali kii fi la dëkk nga jéggi tali kii la fa dëkk raak am ngeen di dóorante ay sox lu ko fi jar. chambre donc aujourd'hui tey bu demee Koungheul encore convoi au premier ministre je dis la tête de liste mais quelque part aussi boobu da ngay tayle sa bakkan mm. parce que moom compagne bi bu mu commencé ba tey li ñu gisagum li muy drainer si si mbooloo mais songu kooku noonu te wóor na leen ni moom mbooloom dina ëpp sa mbooloo cinq fois six mm. fois sept mm-hmm. fois mais en réalité tu t'exposes mm-hmm. mais lan moo war yow sax nga war a songu parce que ce qu'on a écrit partout mooy le convoi de Ousmane Sonko a été attaqué laal moom laa liir fépp mhm. léegi nag reste savoir demain par rapport développement la ñuy wax mhm. mais li ma gisagum ñu publier yëpp partout la le convoi de Sonko a été attaqué mhm. léegi nag riposte am na malheureusement on a vu des Jakarta calcinés on a vu ay nit yu daanu bon on a on a on annonce mais encore une fois c'était à éviter. surtout les blessés sont voilà, là c'était c'était je pense que c'est à éviter. parce que ku si nekk bu doxee fi war a dox dem fi wax li nga war a wax sénégalais yi. ah ñu déglu la ñu tàccu la wala ñu ne la ok baax na nga jógee foofu demaat feneen mais c'est ce qu'on attend d'une campagne électorale mmh. il faut quand même que gars yi xaw a wàcce un peu cette montée montée quoi mmh. parce que tamit campagne présidentielle ñi doon génn situation bu gënoon doy waar présidentielle présidentielle bi campagne bi mënoon nañu xalaat ni ce sera ce serait ce ça ce ça ça aurait été une campagne teintée de violence de bout en bout ça ça n'a ñu dugg si législative bon. mu commencé mu commencé ni quatre jours yaa ko wax léegi quatre mm. jours quatrième jour de la campagne. Mm. ñu bëgg dugg si ay ay violence ay yoo xam ne war nañ ko mën a moytu. encore une fois uh-huh. on a l'habitude de dire que la violence c'est l'arme des faibles. Mm. mais également tey jii avec euh, les réseaux sociaux les lives les directs qu'on est en train de faire ngay attaquer convoi. et à visage découvert tey ji mu mel ni yëfu ma tey la ñu nemmeeku et ça est-ce que ça doit être le cas maa gis xale yi di fo naan la bataille de Kaffrine li xewoon Kaffrine ci présidentielle bi cette fois-ci on nous parle de bataille de Koungheul est-ce qu'on en a besoin tey ji c'est juste après le discours de Ousmane Sonko à Koungheul qu'on a constaté euh, attaque boobu. xam nga boo tâtee un peu l'histoire politique du Sénégal euh, ci période rek bon récente. Mm-hmm. bi Ablaye Wade di opposé wu. ak Senghor il n'y mais au temps de Diouf kojoon nañ leen fii seen convoi avec des lutteurs xëy sax am ñu ci génn àdduna euh, ba songu am mais après à part loolu li ñu fi gisoon mooy ay échauffourées yu ndaw mais bii ñu gis nii. Mhm. dafa commencé doy waar. parce que li Ablaye di wax l'incon l'insouciance et l'inconscience dañuy boole ci attaque parce que quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko est un premier ministre là il part en campagne mais war nga xam ni am na sécurité boo xam ni du ñu bàyyi l'homme politique rek yàlla sécurité boo xam ni doo ko gis yow yow citoyen lambda bi doo ko gis c'est comme quand le président se déplace am na ay nit ñoo xam ni ci biir jàkk am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi ko yow sàpp bi mais boo yëkkatee sa loxo dootoo ko ñaareel mm-hmm. parce que dañuy dañuy foowee seen baxan comme on di wax boo bëggee jooy da ngay tooñ doole alhamdulillah parce que imaginez et là je pense peut-être c'est une posture du du du du premier du, du Sonko candidat de liste xëy na moo tey ay nitam mais bu juumoon comme ni Abbas juumee woon ci communication kon tey mar day taali on n'aurait pas parlé de blessé mais de mort. Mm je pense que tey ñi ko des jógewuñu fenn. ci ay kër la ñu jóge dañu am papa am yaay am jabar am doom ay xale la ñu xëy na ñu fay leen des choses comme ça mais fi ñu toll ci information démb rek ñu ngi koy wax mm. pourquoi animosité bi euh, c'est-à-dire il faut que ñu con ñu ñu convoquer ay ay concepts sociologiques euh, maanaam xëy na bu ñu doon wax ci wàll lu tax société bi les politiques euh, Max Weber bind na ci mm. loo xam ne da ci jóyoog sax ak Durkheim qui kii le per de la sociologie Euh, waroo nañu parce que kii dafay indi benn genre sociologie euh, fonctionnaliste kii indi benn genre euh, sociologie boo xam ni peut-être pour moom comme li yi def nii la lutte mooy moo moo war a imposer wu dans dans rapport rapports politiques mais tey boo defee benn jàngat sociologique ci suñu woy politique yi ni ñuy demee xam ni peut-être le mal est profond parce que ma ngay commencer ci suñu famille. Mm-hmm. parce que booy wax ci famille bi ngay commencer. parce que famille bi mooy. fële lépp instant t égal zéro. Mhm. ñëpp ci famille la ñu jógee. Mhm. donc famille boobu fële nit ñi jógee société bi mhm. ainsi de suite donc je pense qu'il serait bien que sociologue yi wax ci bon je ne sais pas nag yan moyen lu suñu ay sociologue di disposer pour aborder ces ces ces véritable question questions qui la la les sociétés contemporaines et particulièrement le Sénégal malheureusement malheureusement lii moom nañ ko stoppé parce que ba léegi amagul bakkan bu rot waaye comme li wax boo bëggee. jooy da ngay tooñ ku la ëpp doole bu fayantoo amee et je demande ici solennellement au partisans du du Ousmane Sonko que mu def appel à la retenue xam nga am na lu Montesquieu doon wax bi mu tegee la séparation de pouvoirs daf ne boo amee doole tamit il faut que yow mi am doole tamit nga tolérable surtout boo nekk ci position de pouvoir tey ñoom ñoo nekk ci position de pouvoir nañu am un peu de tolérance comprendre waaye tam masla ba ñu maasale la. tamit euh, Ousmane Sonko moom ñëpp xam nañu ni maama ma ko yar. donc waaw day defante kon nag nañ bañ àgg foofu. <laughs> Euh, Issa tey. Euh,